di bës Buzz Actu 221 li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek nataalu Adji Sarr bi nga xamante ne rek jamono ji ah, ma ngay lëmbee bu baax nag réseaux sociaux yi moom ex masseuse bi nag ah, jamono ji daal mel na ni rek ma ngay dund foofa ca diwaan bu Canada nga xamante ne rek ma ngi fay dund nag beneen ah, dundam daal dinañ koy gis rek mu daal di publier nag ci page Twitter am photo boo xamante ne rek bu yànji lool la moom ex masseuse bi nag nga xamante ne rek daal dinay siiw lool ci Sénégal ginnaaw coow bu doxoon ci diggante mag kii di Ousmane Sonko nekkoon fi njiital euh, Pastef Adji Sarr nga xamante ne rek ab coowam ci vingt 2021 ba deux 2023 nag moom moo lëmbe woon réseaux sociaux yi ak réew mi niki démb nag ci occasion bi nga xamante ne rek doon nañu amal lii di ab set setal mun émoon benn fan ci weeru juin ci atum 2024 ki nga xamante ne rek moom mooy ilimaanu jëwriñ bu njëkk bi nag daal di woon na yëkkati kàddoom nee na nag bisu démb boobu nag yem benn fan ci weeru juin rek da koy daal di fàttali li nga xamante ne rek moom moo nekkoon verdict bi doxoon ci diggante mook Adji Sarr ginnaaw bu ñu joxee woon nag verdict bu nu mel waaye nag Adji Sarr nga xamante ne rek nekkoon na ab masseuse boo xamante ne rek ñu ci bëri dañoo yàq ni rek dañ ko doon utiliser nag ngir mu lalal ndëgg sarax kii di Ousmane Sonko ay bakkan doomu aadama rek jot na cee faatu ay yàqu-yàqu yu bari rek nemmeeku nañ ko ci diirub 2021 jàpp 2024 mu nekk nag mbir moo xamante ni rek mbir mu doy wàlla nemmeeku nañ ci sax ay ndaw yoo xamante ne rek tegoon nañ leen loxo ci manifestation injustice bi nga xamante ne rek doon nañu ko def nag ngir Ousmane Sonko mun a am ab liberté lu bëri rek ci ay ndaw nag daal dinañ woon leen teg loxo yóbbu leen fa mbaxana doone benn kii di Adji Sarr nag ginnaaw rek bu nguurug Macky Sall wàccee ci élection présidentielle yi nga xamante ne rek doon nañu ko amal niki ñaar fukki nak ak ñeent eh, ci weex mars ci atum 2024 bi moom Adji Sarr nag dafa daal di rek daal di amal ab exil maanaam daal daw làqu ñu ci bëri rek ne nañ ma nga jaax ca diwaan bu Mauritanie ba mu jugee ko Mauritanie nag dafa daal di rek dem ca diwaan bu France ginnaaw nag la fa jógee rek wutali nag fi nga xamante ne rek moom mooy Canada eh, waaye nag Adji Sarr mi nga xamante ne rek xas na dugg nag ci taarixu politique bu Sénégal eh, ci ñaawteef fi nga xamante ne rek jotoon na cee am ak li nga xamante ne moom mooy manifestation yu doy waar yi nga xamante ne na ci capitalu Ndakaaru ak ci réew mi wërngal këpp ba bitim réew moom nag dal dinañ koy gis rek mu mel ni kuy jaay waat daal di yeesaat lool nag daal di fashion mi ngi coiffé boppam bi def maquillage boo xamante ne rek bu discret la def manucure mu mel ni rek koy ko di Adji Sarr nag lu ci bëri rek daanaka daal mel na ni safatul ko ndax moom ci jëmee boppam rek ma ngay wéy rek di dund dund koo xamante ne bu mucc ayib la li ko wane du leen rek lu dul ab photo boo xamante daal di na koy eh, publier ñu daal di koy gis mu rafet lool ginnaaw nag diwaan bu Canada bi nga xamante ne rek jamono ji fa la nekk nag di dund ak dundam daal di nay mucc moom rek ci kaddu yi nga xamante ne doon nañ ko yëkkati nag di ko ko teg ak yenn menaces yi nga xamante ne rek ñoom ko ko doon eh, menacé ba tey bu ñu jógee foofu nag dañuy àddu rek wax. ci fukki camion yi nga xamante ni rek ay gendarme la ñoom ñoom nag seen jëmi bopp dañoo dem ci waan bu kër njaayloo mu nekk nag mbir moo xamante ne rek député bii di Guy Marius Sagna daal dinay gis ne rek dañ leen tere rek ñu mën a répondre invitation bi nga xamante ne rek askanu kër Ndiaye Lo daal dina leen koy invité foofu ci cité de baax ginnaaw nag bi ñu constaté rek ne askan woo fa dëkkee nag dañoo daldi rek meex ba futu waraloon rek ñu daal di yëkkati seen kàddu nemmeeku nañ nag lu toll ci fukki camion yoo xamante ne rek ay camion gendre gendarme la ñag leen mobiliser population ba nag ñu ngay daal di expliquer rek seen njàqare bi nga xamante ne daal dinañ koy am euh, ci présence su engins yu ONU yi nga xamante ne rek daal nay ñëw ñu daal di leen gis nag ci ab photo mu nekk ay engins yoo xamante ne rek jege nañ lool dëkk ñi dëkkee ci diwaan bu Kër Njaay loo rawatina cité da baax depuis démb nag ne nañ su préfet bu Sangalkam mu ngi doon jéem a xoqatal rek askan wa ginnaaw bu ñu gisee ne rek dañ fa waroon a ñëw mu nekk mbir moo xamante ne rek kii di Guy Marius Sagna nee na nag bi ñuy yegsee daal yuy njort nañ rek visite bu nu mel nag dina jaar yoon di kat nga xamante ne rek moom député bu treizième législature bi di Guy Marius Sagna daal dina koy xamle jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw